Kéba nga mayaat ñu ci histoire bi tuuti rek xam naa ni dina xaw a métti nag euh, mais nga may ñu ci quelques quelques quelques mots rek. waaw euh, depuis 2019 la woon. yoon di dem. jàpp yoon di dem euh, parce que man dama am habitude na mm-hmm. Mm-hmm. foofu la loolu. ma jaar fa jënd kafe. di ko naan noonu di dem di dem di dem di dem après sama bopp bi commencé di métti. Mhm. di métti après su bët yi commencé di ful quoi. Mhm. après may miir. parce foofu dafa xawoon jege tali bi. ma ne xaaral ma toog. Mhm. parce que li may santé nii nii bu ma continuer dem wóoru. bis laa gisee fenn toog ma dem toog fa. daal di wéeru daal di këmb lu yàgg nag. pour ma gëmbee lu yàgg nag après ma daal di. ximali ko xool nii bi ko xool gisatuma dara. Eh. laa gisee image weex taal taal taal sama bët yi. Ah. gisatuma dara ba di woote gauche ak droite. ku la. Mhm. wala jigéen. mooy mhm. woote di woote. après selon benn waaye daal di gisee. c'est ça ñëw si man laaj ma la moom a daal après ma daal di ko xëy après mu ne ma ni euh, dama tudd yàlla sax. Mhm. après mu ne ma ni est-ce la teewee di ma mën a yóbbu seen kër. mën a waaw parce que lii dégg rek la ma dal te mun ma fàtte foofu noonu yoon na mm-hmm, mm-hmm. te sorewul mm-hmm. café ga ak distance boobu sorewul kër ga mu daal di wombat ñuy dem ba may dugg ci koñ bi sax am na benn benn ku ma xam mooy gis ni bu wax may dama xam masqué wu ndeysaan ànd ak waa ji dem dem ba ma yëgee kër ga nag sama papa mu gisee muy jooy sama mag sama rakk kër gi ñëpp di jooy mu nekk jour bu jour bu triste jour bu métti après ñuy toog di ma dëfal ku nekk li ma defal nga tuddoo yàlla santal yàlla yàlla moo la ko teg. Mm-hmm. moom la ko teg rek moo ko xam moo tax noonu après ku nekk defal ma noonu après ñëpp génn nag sama rakam jigéen fekk moom mi woon toog foofu quoi. Mm-hmm. moom jaara mooy suñu caat bi. saalitoon naa sax ba sama loxo si miir bi. parce que automatiquement. Mm-hmm. ba may waaj jël fu ma toog noonu di ma andi. maa ngi doon xalaat ma tey fu ma naan demal sama bopp. daa ànd sama borom. lépp nit daan defal boobu di ko am man tey jii mënatuma ko amal sama bopp. fu ma daan dem lépp yi ma daan def fi ma daan dugg événement yi jot am ak programme yi am yëpp tey jii man pour ma gën dem ba mu nit jëlee fii yóbbu ma. Mhm. duma fa mën a yóbbu sama bopp. image yooyu nag di ñëw sama bopp quoi. Mhm. moo tax ma jékki saa yi saale noonu euh, saale teg door sama loxo si mur bi. sama raqab su la ñuy téye sama loxo tamit dama dama dalal ko mhm. tudd yàlla ak yooyu noonu. natt yàlla la. bëgg génn nii euh, di ragal. Mhm. pour man bët yi kiiwul noonu quoi. Mhm. pour man lii daluma daal. si jàpp moo ko sama bopp mooy bëgg di génn mais damay ragal. pour génn wàcc nii mooy génn après noonu yàlla nag may na ma soxla nag. di yàlla mu nekk ku jàmbaare. macha allah nekk tamit ku baax. te ba dara doolu woon dara nag. lañ naan lañ nekk. Mm-hmm. mu met lool trop si man. Mm-hmm. ah mu dégg lu nekk. Mm-hmm. jàpp rek taw bàyyi. ndeysaan dëgg yàlla waaw ah, mu jàpp rek taw bàyyi. macha allah nekk ak man man man mii waroo découragé. moom mooy encouragé sultan. ndeysaan dama jàppal. dina baax yàlla la ko teg. mu nekk xale tamit. macha ku xool jamono ji nu mu mel nii rek. boo amul gëm-gëm si benn affaire rek. lu lay gaaw a découragé loo. day yomb. Mhm. moom moom tamit mu jàmbaare nekk ak man yàlla dëkk ma moom benn doom. Mhm. boo xoolee ci clip bi sama doom moo ci nekk noonu. Mhm. moom laa uuf. si si sama doom moom laa tuddee sama ménager bay almaañ. macha allah moom mooy sama doom xale boobu. Euh, te am na trois ans te mosuma ko gis. ndeysaan. mosuma ko gis jour bu muy judd noo woo am nga doom bu góor. ma ànd ak almaami ak sama beneen xarit ñu dem hôpital ba. fekk ma sama benn mag bu jigéen. Mm-hmm. ak keneen ak sama yeneen ñaari mag bu jigéen ak ay mboqam ñuy jooy jooy yu métti sama mag di jooy ma ne ko looy la mënuma yàq bi teg teg si si si. almaami téye mm-hmm. ko almaami téye naa ko ni mais gis ma ko mënuma ko xool. mënuma ko gis. di yàlla te ñetti at la am day foog man di reetaan. ci lu ne dëgg yàlla nag même des fois su may génn dem toilette sax mooy téye sama loxo pour romb ma pour yóbbu moom. ndeysaan. yàlla moo tax man boo euh, xoolee son bi na yenn parti yow foo su ma déggee rek. Mhm. damay jooy. si parce xam ne lu la quoi. Mhm. waaw xam ne lu naturel la loo koy dund ak moom. si dëgg yàlla même yaayam maa moom ñu àndee dem su ma su ma ko su ma nekkee kër ga su ma jiitoo dem. Euh, sama doom bi su ko fekkee rek laaj ana Kéba. man la koy njëkk a laaj yàlla xam na loolu. wallaahi man la koy njëkk a laaj waaw balaa moo jàngi sa dem dina nekk di kafam man nekkam man foofu ba heure jànge mu ndara ba heure mu ndara mu mm-hmm. koy mujj obligé na ko pour mu mën a dem. nga dem jàngi. waaw yàlla te doom neex na tamit si xol. Mm-hmm. sax na tamit si xol trop. parce que des tamit da gis ñu ne xale bu ne sa waajur teel a fob la. Mm-hmm. di la yóbbu fu lépp loo bëgg mu la koy defal. mais mm-hmm. man tey su ma ko téye su ma nit jëlee foofu ànd moom moo dem du ma mun a yóbbu sama pew fenn su ma ko téyee deux pas trois pas laay def ani yéraat taxawat. des sama bañ day jooy fekk du ci man mm-hmm. moo tax moo tax ma wax si biir son bi yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma gis sama doom. su ma may ma gis sama doom ba pare après sax mën na muuraat sama bët.